forage ko doon waxtaane ci réewum Sénégal di boo moytuwul réew Sud Quotidien daal ci diwaanu Amérique di loo xam ne daal moo am ci réewum Sénégal boo moytuwul réewum Sénégal dana ci ñàkkee lu bëri loo xam xam ne daal du xam fu mu koy jooyee li ko waral moo di jamono ji njiitu réew mi Macky gannaaw ba mu demee ca groupe consultatif bi nga xam ne nag moo nekkoon ca Paris ak milliards yi nga xam ne daal digoon nañ ko ba léegi amul benn milliard boo xam ne daal jamono ji ñi ngi nekkoon ci réewum Sénégal di yëngu ci lépp loo xam ne da jëm na ci wàllu koom-koom ak yu ni mel ñoom nag jamono ji boo moytuwul danañu jël seeni bagage barq jóg maanaam daal gedd Sénégal boo moytuwul danañu takk ñoqali maanaam takk jóg bàyyi fi réewum Sénégal yéeni kaay bi di xamal ni moom Macky ci yoon moo mu ci ndax lépp loo xam ne daal rapport IGE bi nga xam ne daal dañu doon xamal ne rapport boobee daanaka dafa senn maanaam daal ñu koy gis réseaux sociaux yeeg yu ni mel loolee daal dëgg dañoo xam tamit ko joxoñ baaraamu tuuma ci lépp loo xam ne la moom kay boo moytuwul dana ca laale vox populi dañoo xamal ne kay procureur général bëgg na leeral lépp loo xam ne nag jëm na ci rapport IGE bi Le Soleil dañu xamale jamono ji kay enquête dëgg la sàkk ngir mu leeral lépp loo xam ne nag jëm nag jamono ji yi ma ngay raggab deram ci lépp loo xam ne nag jëm na ci cay contrat yi nga xam ne daal dañu koo nga xam ne nag moom maître Abdoulaye Wade kay jamono ji seetal xam ne nag jëm na ci fànn dalal ki nga xam ne nag moo di Samuel Sarr mi nga xam ne nag moom Samuel Sarr nekk tamit ki nga xam ne nag moo di Franck Samuel di ñu xamal ne jamono ji coow lii nga xam ne daal moo am ci réewum Sénégal bari na ñoo xam ne dañuy yëkkati kàddu di mbele mbele di ci lu bëri xam ne a daal di yëkkati kàddu yu dul noonu daal koy jëmale ci dëkk bu sell bii di Touba réew mi quotidien di ñu xamal kay moom kay la mu sàkk moo di képp xam ne defati nga jëf ju mel noonee maanaam daal ay daan ji daanañu ko lool ci sa ndodd maanaam daal sa kër sax boo moytuwul danañu ko toj yi mu nekk nag kaddu yoo xam ne xalif général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké mooy ko yëkkati maanaam daal la ñuy moo di jamono ji a ne daal a denc ci bi nga xam ne moo war a dox ci diggante ki xam ne nag moo di Modou ak ki xam ne nag moo di Eumeu Sène jamono ji na combat boobee ñaari mbër yi ku ci nekk yaa ngi koy la muy xaar moo di bis ba jot ñu sëgg bëre mu gàddu ndam la moom kàddu yi la man daal xam naa jamono jii naa dem naa nim ngeer maama seeti leneen ndax sama baat bi ñëwaat ba suba